waaw xanaa di ko rafetlu di ko rafetlu parce que lu ñu faral di gis wala lu ñu mësute gis la sax defe naa ci suñu réew eh, lu baax la parce que ñun dañoo amoon habitude ne il faut ñu décomplexer mbirum xaalis ci politique parce que soo seetee différence entre monde anglo-saxon et monde francophone c'est que dans le monde francophone l'argent est tabou en politique duñu wax de xaalis pourtant des milliards circulent financement campagne électorale qui s'est nañ ni muy demee suñu réew yi ay xaalis bu dul jeex la ñuy surtout ñu yor nguur wala ñu ko yor wala mais personne ne parle de la provenance de l'argent alors que dans le monde anglo-saxon l'argent n'est pas tabou dañuy def des des quêtes ouvertes des de grandes conventions ñëpp ñëw borom alal yi euh, industriels yi ba le citoyen lambda ku nekk j'ai tant de dollars pour vous gagner, c'est joxe euh, contribution là parce que je crois au projet qu'on m'a présenté et c'est ça qui fait la transparence voit le financement parti politique je crois que nous, on a décidé d'être dans ce registre mooy ñun ñi gëm li ñu ñun ñu ko bokk gëm war nañoo jaral kenn ku nekk am na mu làmb ci poosam pour ñu mën a dem c'est d'autant plus important que tey fi àdduna toll euh, comme disent les étudiants l'heure est très grave parce que crise multisectorielle bi nga xam ne am na ci àdduna te mu jëlee cosaan ci crise sanitaire mooy feebar bi fi am waaye lu gën a xóot la parce que dañ ko cee ñàmbaas rek mais bu feebar bi amuloon sax crise dina am mais da koo yokk crise boobu boo ko seetee bu baax dafa yóbbu réew yi nga xam ne ñooy réew yu gën a am doole ci àdduna daf leen yóbbee ñu def sacrifice yu bëree bëree bëri ñoom pour faire face à la crise parce que ñoom la ñuy def ñun suñu réew yu ñàkk doole yi mënuñu koo def et soo ci tirés Europe Européens, wala aux Amérique wala ils ont été obligés de puiser ces réserves pour faire face à la crise pour assister socialement ces citoyens pour éviter qu'il y ait un président wala yu mel noonu nous ñun conscience d'une chose moi, ce monde des puissants il faut que nous reconstituions rapidement stock bi la fan la koy plus plus jamais que plus que par le passé même l'Afrique va être un enjeu de convoitise que malheureusement amuñu ay njit yo xamné amnañu gis-gis bi ak sañ-sañ bi donc nos ressources naturelles nos ressources halieutiques suñu alal ci walu, pétrole gaz ak ressources naturelles suñu alal ci walu li ñu yàlla may ci géej gi suñu suuf si les ressources foncières suñu marché public yi yooyu yëpp ça va faire l'objet de convoitise et de prédation nga boole ci li nga xam ne moo xew ci biir réew bi mooy gouvernance bi fi am ni ñu yoree réew nga xam ne dañ koo teg ngeen jéggal ma ci kàddu gi ci càcc ak détourner xaalisu réew mi benn minorité bu ndaw a ndaw a ndaw toog ci ay milliards et milliards yoo xam ne lépp ñu ko teggee ci ñu ko tënkee ci ñu ko tànkee ci trésor public bi loolu dafay gën a mettre au goût du jour suñu projet ñun en tant que alternative parce que ñun duñu opposition on va au-delà de l'opposition on va au-delà de l'opposition opposition mooy képp ku ne faruma ak nguur gi maa ngi féete ci kujji gi opposition mais est-ce que képp ku woote opposition alternative alternative nga

ñun ñu pouvoir pour le pouvoir su doon loo loolu am nañ ci suñu wàll ba pare mais problème bi mooy Sénégal est-ce que avons na toog di xaar désormais chaque seconde est précieuse chaque minute est précieuse parce que plus ñuy toog à l'échelle des nations amul sur place la nation qui n'avance pas recule parce que les autres avancent et creusent l'écart Nous tax mënatuñu toog di xaar d'où l'importance ñu xool loolu naka lañ koy doxale pour loolu ñu egg ci nag ñun ñëpp dañoo war a xam ni politique tawit dafa ànd ak moyen politique dafa dafa laaj nga yor dara tuuti loo mun a doxee jusqu'à présent suñuy moyen néew na trop yàlla may nañu résultat boo xam ne yéem na ñëpp mais nag nañu xam ni une chose a a été d'en arriver là waaye fi ñu bëgg a yegg tamit fa laaj moyen pourquoi ñu soxla mooy soxlañ mooy pour def tournée mooy tour bi ñu wax si tu veux faire le Sénégal c'est 45 départements c'est plus de quinze mille villages euh, c'est cinq cent cinquante deux communes et c'est cent quatre vingt seize mille kilomètres carrés kooku dafa laaj moyens yu koy def il faut des moyens logistiques il faut des moyens humains il faut des moyens de communication yu koy def soxla nañu am suñu propre siège boo xam ne dina mel li ñu bëgg te dootuñu fay loyer wala yu mel noonu soxla nañu am suñu propre matériel logistique suñu parc automobile par exemple soxla nañu des moyens pour que idée yi ñu yëkkati ba Sénégal yi yëpp fetlu ko lu mel ni les vacances agricoles patriotiques je félicite au passage tout le monde tous les militants et les militantes nga xam ne xaaruñu ñu jox leen dem nañ ci mais bëgg nañu niñ koy organiser ñu ne au moins jàppale nit ñi ci jiw wala jàppal lañ leen ci wala jàppal lañ leen yu mel noonu day gën a jox mbir mi je crois euh, benn envergure donc ñun ñëpp dëppoon nañ ñi soxla nañu moyen soxla nañu moyen enfin pour dem élection loolu eggaguñ ci waaye ñëpp xam nañ ni campagne électorale lu météo te dafa laaj ay moyen fan nañuy jëlee moyens yooyu mooy on a le choix moyens mun nga ko am ci prébende mun nga li di def nga def ko di nga am moy moy bu nga ko am ci eh, lekkelo ak ay eh, lobby ñu jox la surtout nak gis nga politique bo démé ba egg ci fenn produit ngay do am na xamné yor nañu alal bu dul jeex di wër di xol ay produits politiques sur lesquels ñu investir fa pour démé ñu am retour sur investissement mais ñun passef dañoo dogu ni ñu lenn ci loolu parce que bu non seulement ak suñu moral ak suñu en tant que en tant que africain en tant que ñu mais également bu ci compromettre suñu projet parce que projet pour nous, pour ñu a def ëllëg la bëgg la ñu il faut que suñuy en restant indépendant et autonome mais suñu suñu rek suñu nous pas déjà présent rek moy ne démé pas boo tout ligay def lañuy pourquoi nous ñuy de manière aussi facile à des entreprises étrangères au détriment du Sénégal c'est parce que engagement yi tout le pourquoi telle ou telle catégorie sociologique ñu a def ak ñom ñi pourquoi on est pris en otage par euh, des alliés politiques parce que nous, waxanté waxante des ak Nous, la wala liñu ñu ne kon benn voix moo fi des même suñu mayul ñu am li ñu bëgg yëpp parce que nag contrairement aux autres on n'a pas besoin de de de de, de milliards yu dul jeex parce que politique boo xam ne laluwul ci dëgg ci naxaate la lalu laluwul ci gis-gis wala ci programme waaye démagogie la lalu politique boobu moo moo ànd ak ñoom li ñuy def il faut nga yor xaalis bu bëri pour dem jënd des électeurs mais nous, ñu on est déjà dans le cœur des Sénégalais par la majorité des Sénégalais même ni beaucoup de partis, parti font nañ des def gëm nañ gens am donc la des suñu tout ci moyen gëm naa ni war nañoo soxlaw ñu ñoom la yor ñoom mais suñu dajalee tuuti ci moyen gëm naa ni mun nañ def résultat bu ëpp yoon li ñuy def kon lancé ñu gis ci nag principe bi mu demee dafa am solo là c'est le fiscaliste qui parle mooy parce que lii sorewul ak impôt la seule différence c'est que c'est pas obligatoire mais lii mooy li ñu ñëpp bokk dañu fexe ba kenn ku nekk am lu mu comp ñu dajale ko pour mun a doxal loolu loolu mooy fondement impôt ci boppam impôt nag bi ci gën mooy bi nga xam ne assiette bi dafay yaatu mooy ñi ko war a joxe day bëri waaye li ñuy laaj kenn ku nekk doon néew nga xam ne du dis ci kenn parce que soo soxlee un million ñu ne la fukki nit nga am il faut kenn ku nekk joxe cent mille pour nga am un million bi mais bu ñu woon am nga cent personnes kenn ku nekk joxe dix mille nga am un million bi te pourtant même montant bi te diisul ci kenn kon nu mu gën a yaatoo rek la gënee te ñu bañ cee xeeb kenn. dañ may jox benn anecdote benn xale élève la élève ma nga fële ci Saalum mais dégg naa depuis élection yi ba léegi weer wu ne mu envoyé Orange Money deux cent francs parce que nee na moom patriote patriote la te bëggul nekk patriote ba pare du contribuer ci li war a defar ëllëg réewam ak avenir am si weer wu ne mu envoyé 270 francs xam nga loolu euh, euh, c'est à la fois symbolique mais 270 francs man moma gënal 1 million bu Birame Souleye joxe parce que xamna ni 1 million bi neew ma rek dafa am xaalis bu bari de encore qu'il a de très beaux costumes mais xamna ni xalé boobu nu muy def pour dajale 270 cent soixante francs deux cent soixante dix francs boobu moo gën a métti su biram da non dajale 1 million kon loolu moy principe bi nañ ci continuer diko ko rafetlu di féliciter di encourager initiative parce que man nemmeeku tur bi duma ci dara fekkee ma buñ koy buñ koy sos fekkee ma buñ koy préparé bi ñuy tëral naka la war a doxee mais ay nit a jël initiative bi ñenn nekk fii Sénégal ñenn ñu nekk bitim réew mënuma leen lim parce que ku lim fàtte mais di leen féliciter di leen encourager également ndax liggéey bi rafet la di félicité également di encourager les contributeurs ñene ci diaspora bi d'abord ñun ñëpp xam nañ importance bi diaspora am ci suñu liggéey du ñu quantité waaye qualité lañu te saa su contribution jotee ñu góorgóorlu def ko sax ñoom comme concurrence mais loolu mooy concurrence saine borom bi sax daf ñu ne njëkkante leen ci lu baax di ko def concurrence entre mais yemuñu foofu yemuñu fofu parce que nous jouons un rôle extrêmement important la massification bi ak ci électorat bi kenn ku ne ci ñoom ngi di mobiliser des gens fii Sénégal ci mu bàyyeekoo moom ak yu mel noonu am na idée ñu daan sax chaque membre la diaspora voté la un certain nombre de personnes quarante quatre personnes ont voté pour nous dans la diaspora en 2019. si chacun parvenait à faire voter 10 personnes ou 20 personnes ou 50 personnes c'est des milliers ou des millions de, devoirs qui seraient engrangés comme ça. Vous voyez, nous avons aussi des étudiants. Nous avons également surpris également surprise. Depuis hier, les euh, résultats engrangé engrangés, ils ont levé des fonds. Nous savons que nous avons des étudiants qui sont Soit mes départements, vous levez 1 million, exploit. Soit mes départements, vous levez 2 millions, exploit. Parce que nous, dañuy serrer la structure comme c'est pas petit pour joxe li ñuy de 100 francs à 100 000 francs ñu leen wax gàcce di leen féliciter euh, di leen encourager également di leen wax tamit ni ni lépp soññ la ci ñun soññ supplémentaire la ñun yàgg nañu góorgóorlu parti bi bi muy door 2014 euh, matuñu woon daan na ñu am jafe-jafe sax boobu ñu ngi am siège fële Ouest Foire di ko fay trois cent mille francs par mois daan nañu am jafe-jafe léeg-léeg pour fay siège bi di ci góorgóorlu di ci góor góor boobu jamono buñ daan def tournée man maa doon dawalal sama bopp sama oto léeg ma dem ànd ak benn nit léeg-léeg ñaari nit ba ni may am chauffeur bu may dawalal ñuy dugg ci àll bi di dem ba tey parti bi toll fii ñu mën a am des milliers de personnes à travers le monde yuy génne di contribuer loolu daf ñu war a pousser à une chose mooy ñun tamit de notre côté dañu war a continuer ci góorgóorlu ba nekk référence ak royukaay bi nit ñi di xool ci ñun chacun d'entre nous entre ñi ñu nekk ci top management parti dañ ci war a gën a góorgóorlu euh, di dalal xel nit ñi tamit nii lii ñuy dajale nii du pour man du pour Birame Souleye fukki dërëm duñ ko ci utiliser ci warul dem ci liggéeyu parti bi parce que mun na am Sénégal la ñu nekk léeg-léeg ñaaw njortu am nit ñi foog ni sax peut-être li ñuy dajale feneen la jëm wala am na ci lenn luy dem feneen loolu ñun araamal dañ ko suñu bopp soxlawuñu li ñuy jël di def ci parti bi ñun wax dëgg yàlla ëpp na foofu lu nit mën a imaginer mm-hmm. donc dërëm buñ fi utiliser ci ci activité parti bi lay dem mbirum politique nag moo xaw a jafe ba munoo loo def munoo dem ci benn événement social def fa dara ne daggal leen ma facture parce que damay def comptabilité waaye du am fukki dërëm boo xam ne ci lii ñuy dajale nii dina dem feneen bu dul ci activité ak liggéeyu parti bi donc lii mooy ci lu gàtt li ma bëggoon wax di wax nit ñi nii l'heure n'est plus à la théorie ñoom ñi ñu jàkkaarloo li ñu bëgg mooy de nous divertir qui a été le secondaire. Vous voyez la réorientation stratégique du parti ces derniers mois. Parti suit mag, leadership de fort mag en que parti. Nous avons fait politique en 2017, nous n'avons pas fait politique aujourd'hui. Ce qui est bon ci action humaine Moi, ji mu sax des Mag màgg yow nga bañ a mouvement bi des fa nga doo doo mus a les acquis donc tey ñun waratuñu am jotu débat secondaire yi la ñu dese mooy nekk ci terrain bi suba ngoon guddeeg bëccëg ñëpp xam nañ ni suñu amoon le minimum de moyens yi ñu doon xaar man je ne reviendrai à Dakar que pour changer ma valise xool sama njaboot demat parce que rien ne nous retient ici en réalité que la périphérie est importante en politique il y a même des gens qui disent que on conquiert le pouvoir à partir de la périphérie. Parce que les grands pôles urbains, le niveau d'information et de conscience politique qu'on a élevé mais tout ci bi village dem nit nit ak ak ñu ki ñu doon ci bi na suñu est bi distraire sur des débats secondaires amna luñ doon def en 2015 2016 2017 mu jig ñu trop ba ñu egsi suñu méthode désormais dynamique bi fi des mooy conquête du pouvoir en 2024. mille fait loolu nag dafa am comportement bu mu laaj de chacun et de chacune d'entre nous te bokk na ci loolu en plus de lignes définies def nii kenn ku nekk na jël résolution ne bis ni ki tey ubbi man sama propre fichier pour enrôler des électeurs rawatina nak ni ñuy les primo inscrits Ñepp xam nañ ni ndaw ñi dans leur écrasante majorité ñun la andal. en tout cas am nañu yëg-yëg ci ñun am nañu sympathie ci ñun mais est-ce que ndaw ñu électeur lañu non ñu ci bëri te yor yor sen carte waye duñu voter ci Waye ñu ci bëri tay amaguñu carte électeur nous avons eu l'élection Nous avons 14 ans, 14 ans et 17 ans en 2019. C'est les électeurs en 2024. Nous avons 18 ans. Si nous avons eu l'école nous avons 2 millions 800. 000. je suis venu à la maison, je dit ah, que nous prenions une photo, nous prenions Facebook. Comment faire pour faire de tous ces jeunes-là des électeurs Lolo, kenn ku je commence par moi-même mon propre cœur. man ñaari doom ñu kenn ki di def ko def ko say neveu ko ci bi en rapport avec la massification mais def ko en rapport également avec la GPS le mouvement des jeunes du parti je crois que suñ ko defee on a un potentiel électoral énorme boo xam ne mun nañ ko enrôler dimbali leen ba ñu benn bindu benn bindu suivre leen jël carte électeur mais taxaw leen ba bésu élection ñoom ñëpp ñu gën a dem voté ji commencé ko ci élection locale à venir élection législative élection présidentielle mais que ñoom ñu doon sax les sentinelles de la transparence et de la régularité des élections en restant supervisés jusqu'au soir pour que bureau de vote ça nous interpelle tous c'est l'un des grands projets également du parti Mais pour parce que la fois créer parti réveiller cette figure patriotique là ça commence par nous-mêmes Nous a exemple comme ça se fait dans beaucoup de partis mais qu'elle connecte. Et c'est ça qui te donne ton, tes droits dans le parti. Parce que, bokk ci parti bi su xeex jotee kenn du ma jiitu bu joxee jotee kenn du ma jot jox daf lay jox sa droit ci parti bi jox la sa kàddu ci parti bi parti yoo gis ñu ne parti unipersonnel yëpp dañ naan ki jiite parti bi mooy fay siège bi mooy jënd siège yi mooy joxe caution kooku lu ko neex mu def ci parti bi tey man ëpp ma kenn droit ci biir parti bi donc di ci di wax ni loolu dalal na suñu xel ni cette fibre patriotique qu'on voulait réveiller en chacun et chacune des Sénégalais mi ngi jël forme de plus en plus waaye nañu xam ni la ñuy xaar xeex bu métti la il faut que suñuy militant suñuy militante, suñuy sympathisants xam ni li fiy jëlee lii ñii du rek joxe naa sama contribution du rek maa ngi ci réseaux sociaux mais que chacun et que chacune se tienne prêt parce que gëm naa ni ñii suñu xeexul ak ñoom yàlla xam nag ban forme la xeex bi di jël mais suñu xeexul ak ñoom la ñu doon def di ko defaat ci manipulation ci biaiser les élections ak yeneen ak yeneen dañ ko def pour toog parce que les enjeux ñoo rëy ci ñoom waaye les enjeux ñoo rëy ci ñi nekk seen gannaaw ci ñi leen di jàppale ci bitim réew également donc loolu lañ bëggoon wax ci lu gàtt di daaneel ci wax ni dinañ ci def suñu contribution symbolique wa parti bi nag xam naa ils seront très compréhensifs parce que damay wax ni Pastef ñu le président le plus pauvre de tous les présidents de parti politique donc bi euh, dañ ci def suñu contribution symbolique daa ci def xaaj ko ñent te xam naa ni sax waa parti bi ñooy jàppaat rek ku nekk joxe dara pour que sama pauvre deux cent cinquante mille trois cent mille de contribution yi moo mun ko respecter parce que euh, mais mais président euh, yaa ngi dem parce que parti bi ñoo bëgg nga militants yi ci yi département bi parti bi moo décidé du yow parti bi décidé ni da nga a militants euh, donc parti est-ce que mën wax nga bëgg parce qu'il y a une équipe qui travaille sur ça. Mhm. du sama décision programmation bi. programmation globale. Mhm. Et il y a une équipe euh, assez diversifiée qui travaille sur ça. Nous sommes yàlla ci fan néorec, néew nous présenter. parce que annoncé on ni dañoo bëgg a def tournée. ci plusieurs fois annoncé nañ sax dañoo bëgg def tournée. et chaque fois c'est le même problème qui se posait. bu ñu góorgóorloo ba dajalee 3 millions 4 millions 5 millions Nous avons fait deux étapes mu jeex nga le si waat. looloo andi woon fait jafe mais nous avons fait gis c'est inédit je l'ai dit def nañ fi yeneen ak yeneen yoo xam ne macha allah gars yi jàmbaar lañu am na luñ ci jotoon fortaatu mais ampleur bi mu jël ak li ñu gisagum c'est inédit ce qui nous fonde à penser que dinañu am suffisamment de ressources pour def li ñu bëgg a def la ca des nag question d'organisation la y a un comité bu ciy liggéey et dinañu affiché bu soobee est-ce que mën nañu am yaakaar aussi boo demee fenn euh, au lieu muy doon deux jours quand même nga def une semaine quinze jours vingt et un jours est-ce que c'est possible waaw c' est loolu mooy loolu mooy nemmeeku tour bi en réalité. parce que yàgg nañu def tourné. contrairement à ce que les gens pensent je crois que mon maire leader politique bu tourner a ci Sénégal ces quatre dernières années. Hmm. li ma tourné amul beneen mënoo ma génneel beneen leader politique bu ko hmm. y compris ceux qui ont mille fois plus de moyens que nous. Hmm. mais ci format bi gis nañ ni daanuñu optimiser. parce que jóge fii dem Saint-Louis wala dem Saloum wala dem Casamance def fa deux jours trois jours wax dëgg yàlla mun la permettre nga am li nga bëgg. Mhm. donc le concept mooy suñu ñu demee fenn dañuy établir un siège. Mhm. bu ñu nee Kaolack moo wax ay dañuy dem ne on va faire vingt jours à Kaolack. Mhm. vingt jours yooyu Kaolack la ñuy toog. saa yu ñu xëyee pas Kaolack commune. mais ci région bi. waaw bu ñu xëyee jël benn direction. loolu nag dafa laaj entre ñi fi nekk. ak les départementaux.

soo demee fenn ña la fa toogal léeg-léeg Sénégalais dafa gaaw ci wax ni waa yow diw yaa ngi wax diw diw diw est-ce que diw xam nga ko sax est-ce que diw mus nga koo gis c'est pas indispensable nga gis nit pour ànd ak moom parce que c'est les idées qui qui importe, c'est le projet qui importe mais malheureusement nous avons une société boo am nu muy doxee donc soo demee ci benn quartier ñëw fekk fa ki nga xam ne moo toogal foofu cellule waxuma sax section waxuma coordination mais dem fekk ki fa toogal cellule bi nga ñëw même su dee deux heures de temps nga fay def mu woo waa quartier bi nga nuyoonteeg ñoom saafoonteeg ñoom kooku dooleel nga ko doole boo xam ne ak légitimer nga ko ci quartier bi lu mu doon def benn mun na ci def cinquante te nit ñi dinañu d'accord ni kii parti bi lay waxal donc loolu tam c'est extrêmement important moo tax te loolu pour nga am ko il faut nga nit nga toog tuuti mais dem cof ñëwaat à la limite euh, tu vas faire deux ou trois étapes def benn conférence de presse